bu njëkk bi moom moom dañ ko bëggoon mu jàng ndaxte jàngar mu am ma mu ne moom day bay day bay jàng bi dugg ci musique bi. ndaxte fu mu ne nii na parents am ñu ngi ci liggéey bu mu liggéey papam dafa sonn moom dafa bëgg teel a dugg ci musique bi comme ça mu mun a génn dimbale parents am mais nekk na ci musique bi bu yàgg bu yàgg mais pour euh, affaire bi daal da ngay waaru. te ñun moom dañ ko tere tere ba sonn pour musique bi bëgguñu woon ndaxte ñun dañ bëggoon mu continuer jàngam jàng. ba fu mu yem. c'est un plaisir parce que moom daf ko gëm ñun tam bu mu yàgg ñu gëm moom lu mu gëm donc ñun lu ñu ñaan pour ñun dañuy wax ne xëy na yéex na te problème de promotion wala affaire yooyu mais daf mu génnee seen kas mu génn yëpp surtout man temps bu génnee taanu bon je sais pas après daf ko modifié mais man première version bi sama m'a sama ça m'avait vraiment touché. moom amul problème. nangul ñu paaraayam xol bi moom baax na moom en tout cas lu mu muntu doon moo am na xol bu baax xol bi baax am bare na kii tuuti mais xol bi xol bu baax la yore man musique bi doon sama sago mu ëpp li li muy def léegi ndaxte fu mu ne def ci sonn ñu dimbale pour génn mu tekki ndax pour ma ma engé na tam te musique bi commencé na depuis bu mu nekkee xale jusqu'à présent mu ngi fi toog rajo yëpp dugg na ci dañu toog way ay instance sax dootu leen dëggat na defe ne dañuy dañuy dañuy kii daal après ñu jógewaat temps yi presque na il y mois ñu ko commencé di kii daal TFM di leen invité lii ñu ne peut-être yàlla baax na. Euh, papi sama euh, jëkkër mooy ndijaayam depuis mu nekkee xale ba âge laa ko xam ba léegi mais boobu ba léegi yarute laa xam ci moom discipline bëgg ay waajuram. bëgg ma man mii di jabaru ndijaayam teg ma place yaru am éducation surtout li gën a am solo ci doomu aadama waaw muy yar te am na ko euh, leneen li ma ciy wax mooy euh, man dama teel a dugg ci yaayam bii muy soxna Wilane di sama sëru jëkkër mu jàppale ma soutenir ma ñoom papis tam ñëw def ni moom vraiment daal zéro faute daal. parce ñun. sama famille amul ku si woy moom su ñëwee ba def na day woy am day ça fait un peu bizarre mais néanmoins ma topp ko si loolu parce que nit ku nekk aussi loolu laa ko doon conseil ma ne nga man lu may ragal ba musique lu ma si bañ mooy affaire yooyu ñuy wax noonu dérapage yi laa si bañ tant que amul dérapage man y a pas de problème et Dieu merci dérapage yu gis moom donc damay ne su am na keneen koo xam ne sûrement des gens yoo xam ni maanaam ñoom ñoo nuroo donc am nañu seen doom yoo xam ne dañu bëgg def musique ba jungle la dafa metti donc je pense que la meilleure solution bu ñu mun a def su fekkee vraiment on se on se rend compte que loolu loolu la ñu bëgg ñoom moo ñu accompagner leen. mais ñun dañu ñaan yàlla rek gudd fan ak wér gu yaram ñu koy ñaanal mu gën a évoluer daal. li ma koy conseiller mooy jàpp rek wu bàyyi parce que nit ki su fekkee da nga gëm dara. Euh, te yàlla may la nga am éducation de base parce que mooy lépp te am na ko musique bi nga xam ni ci la jàpp te ñun ñi ñëpp di ay tàntam ay kii kiyam di ko ñaanal yàlla ci barki alxuraanul karim ci barki Nabil Moustapha lépp loo xam ne namm na ko ci bëgg ko ci suñu borom may ko ko mu tekki ci moom ak bépp moroomam boo xam ne daf ci nekk yàlla may leen réussite ci barki alxuraanul karim loolu lañ koy ñaanal vraiment parce que yaru na te mérité na ko. Perse Musique nit yi mun a percer fekk defu laa yoo xam ni c'est en contrefaux avec sa religion surtout si côté boobu surtout laa koy ñaax na moytu moom ak moroomam yëpp am na yoo xam ni ñu yaakaar na ko soo ko deful ne ko tu n'es pas dans le bain et di je dis mën nga tu peux être dans le bain fekk yenn yi eggoo si te bu ñaan mu yàlla mu egg si te loolu ma koy conseil moom ak moroom yi mooy ñu bañ a dem si dépravation des mœurs kooku moom il n'est pas question su ko defee même li su ko defee day il va en trouver sur son chemin. xam nga paa dafa daf ñuy dafa yàgg euh, tere piste musique parce que piste boo xool euh, musique na ay presque dix ans yoo xam ne ni gàlle bi libéré wuñu ko carrément ko bon benn jour ñuy dem concert piste bàyyi boo gàlle bi tëdd mu génn dem concert quoi bon bi mu ñëwee <laughs> piste. dafa tëb rek paa bi àjji ko sox ko rek saa yi delluwaat daw rek dem si gàddi ñeebu ko ah, paa tunkara paa tunkara nga mu nekk ko suñ kër jinnee fi ne paa bi bi nag ko kër gi amul jinne de man maa la escanté noonu ko mais toute façon daal ba xam naa ne bon amul problème du jàpp mer mën na musique mën na la génneel 30 voix yu bokkul mën na la génneel façon mélodie boo bëgg suñ musique te tamit li ma gën a lenn tamit naa la ko assuré si Papis ah piis saawunul de piis balaa ngaa xam piis day saawun dëgg moom muy sentir à si wetam même bu ñu doon dem yenn conseil yi si tournée bi du ñëw quoi benn copain Pape Cissé moo doon miiné palaasu As conseil bu ci kilib rek lam toora day am problème du firi mais bu saa yu ñëwee day firi day firi ba nga xam ne tey ji saa yi day conseil ba nga ne kii est du xam si kaw chaîne bi bon une fois de dafa daan jàng école léegi man ma ne ko léegi ñu def réunion de famille léegi léegi bon da ngay jàng en même temps di di def sa musique mu ne ma waaw bon ñu dem ba mu yàgg am un jour moom toog booy bi daal affaire jaaxal ma quoi ma ne ma ñëw rek ma yeew rek ma ne ko tey dañ dem école quoi ma ne ah, taw si buntu bi donc amul mu jaar ma jël sa moto rek après ñu taal oto dem école. mu dem boobu mu jàng école privée Rufisque ñu dem yëg mu si bisi directeur ñu dem toog boo may wax waa ji ne toog nii rek papis ne mos wàcc boo wàcc rek ne tir dem yoonam moom toog après mën naa waa ji mu ne ma ne mu mooy mais sa booy bi gën na ñëw jàng de mu ko gën na ñëw jàng mooy la mu ne si sa booy bi gën na ñëw te trois mois dafa gis ñu ko fi <laughs> man lan <laughs> trois mois ñëwul mu ah waaw man léegi la ñaata ma calculer quoi ma xam mu ne ma bon am nga arrière un mois ma fay un mois ma wàcc gisuma booy ma ñëw fii si kër gi après wax ko yaayam après dem quoi moom ñëw ba guddi ma ñëw ma ñëw ma waaw yow def may fonto wal <laughs> non pas bàyyi na man ma soo bàyyiloo sax man dootuma fay bon après là ma xam ne vraiment <laughs> mënuma si dara il faut il faut arrêter def rek bëggul jàng bo c'est dëgg il est super intelligent te loolu moom noo gën a métti damay dem ñu ne ma pourtant le gosse là il est il est il est super intelligent ma ne ah man la waa ça ma tuy super intelligent nangul jàng ma ñëwee fii ma jàppante ak moom il était avec sa sa petite sœur ñu ne ma ñii est-ce que ñoom benn kër la ñu yàlla petite sœur ma quoi ma ne si man ne ma kii kii dafa rangé kii ma ne ma kii nii la yàlla bindee il est comme ça c'est une tête brûlée bon mais finalement j'ai compris que musique bi daal mooy léppam quoi. mooy bi mu ñëwee bi mu ñëwee bi Azur jóge Fuuta ñëw xamu fi kenn bi mu toogee koñ bi paa bi di ko daan bul génn toogal benn jour premier jour bi njëkkee am copain suñ benn gaañ la port foofu moom la njëkk a xam ci koñ bi. piis ñëw porfor taxaw ak moom daraay na ko man porfor laa tudd mu ne ko man piis laa tudd mais piis ñëw ci gàllem fii ñëw rek yóoku tëb di fecc ñu ne ko lan la mu ne baay tey am naa copain <laughs> tey dama am copain baay instant mu ngi doog a jóge Fuuta ak yeneen yoo xamante ne sañu ma ko exhibi ci télé bi dafa dafa doy waar dafa doy mais gaayan bu cool la gaayan gaayan jantal gentleman la gaayan bu cool la gaayan bu gëm boppam la gaayan bu bëgg famille bu respecté àndandoo te je maa ngi koy souhaité lépp lépp lu mu nar am ci kanam yàlla na ko ci yàlla musal ci cat làmmañ bët ak dog-dog parce que lépp famille la quoi bayre ji famille la te xam naa ne ci kanam loolu dana am incha allah jërëjëf waaw gis nga comme ni ko gisee on est de retour au Red Bull du Sea Plaza bien sûr avec euh, Lam Toro ñoom daanaan Lam Lam Toro boo gisee témoignage ni sa waa Gale sa copain d'enfance def ci yow sa manager qu'est-ce que ça te fait au bu foor la ma def tu vois parce que du ma ne yaakaaru mu woon egg fii quoi un instant mais tamit seul le travail paie parce que li tamit bu ñu demee ba ñoom ñu télé bu mel ni TFM ñëw interviewé leen ci Lam Toro tu vois c'est parce que Lam dafa joxe boppam carrément ci musique bu mu nekkoon ci liggéey mu doon def moo tax peut-être mu am lii. mais sérieusement li ma li ma dégg fii nii sama m'a tellement touché parce que bu fekkoon dama doon def ay effort mille moo damay def effort effort un million parce que ñii jar nañu nga rey sa bopp xar sa tubéy pour mën a tekk ci li nga nekk quoi parce que je vois que ni képp lépp lu ñu mënti wax ñoom euh, yéenewuñ ma lu dul boo ma tekk ci lu ma nekk quoi tu vraiment je suis ému tamit waaw. <laughs> <laughs> gars yi expliqué nañu anecdote yow yu amul fenn te gëm naa ni am na yoo xam ne waxuñu ko <laughs> yow yaa ñu koy wax waaw te foofu laa bëgg ñu jëm <laughs> euh, yaa ma doon expliqué bi ngay doog a jugee Fuuta non expliqué ko téléspectateur boobu moom boobu foog gars yi jot dama benn copain bu tudd Talla quoi moom daf ma sonal Talla Ba des fois bu ñu jotee nii rek te mu ne ma bàyyi yow dimbale ñu booy fis da ngay ñëw fii xamoo sax luy rab jóge fuuta ràng xam nga <laughs> xam léegi boobu damay expliquer benn affaire benn jour de mos naa jóge fuuta ñëw ànd ak paa ñu dem Sandaga quoi pour mu jënd li mu temps ay adidas yu gàtt yu rouge yi ñoo xewoon quoi mm. léegi ñu dugg ci biir Sandaga bi jënd adidas yi ba pare xam nu ñuy génnee noonu di dox rek ma jàdd rek dajeeg benn mannequin mooy mannequin yooyu ñuy solal te ñuy taxaw nii ci kiw téyër yi mm-hmm. mannequin bi def nii quoi bu jigéen non dama dama jàdd nii rek nuyu ko rek <laughs> paa bi ne ma bàyyil bàyyil lii du nit xam <laughs> <laughs> beneen bi fële lañ demoon cinéma lañ demoon ko xam nga rek boo jógee Fuuta nii xamoo cinéma nekk ngaaga xam mm-hmm. nga mais Fuuta nag léegi ay nan défa dëkk de léegi amatul ngaaga xam nga mais jamono ñu koy def 86 naakal belende laa woon xam nga baa bi yóbbu ma cinéma xam film indu ma concentré wu ci écran bi affaire baa ngi ngande moom man pour man ci biir film bi laa nekk jékki-jékki rek indu bi ne ni pistolet bi natt ba jubale ci war rek ma ni nii ci baa bi commencé ci paa bi quoi paa bi yëkkati waat ma ne ma wuyu ma ki du la def dara ma ne ko mais papa o warat kam o warat kam Lamtoro sur beneen welo waaw beneen émission beneen melo avec Mamel Lamtoro jeexagul am na yu bëri incha allah am na yu bëri. Lamtoro euh, dama bëggoon ñu ñëw ci taxi yi. maanaam euh, bu ñu gisee bëgg nga torop style comique. Mm-hmm. maanaam ci say woy la plupart des woy yu may déglu. damay gis da nga ci yor ay feem yu mel noonu tu vois da ngay jàllale sa message mais en même temps bëgg nga reetaan lool nit si lan moo la inspiré loolu wala naka la la maanaam style comique boobu dikkee voilà voilà bon may nekk bayre ji dañoo génnee en 2006 cassette boo xam ne album boo xam ne kenn laam-laamewu ko album bu nice tu vois ñu def ci track boo xam ne moo ngi tudd bés penc bés penc bi moom day relater fee yi nga xam ne mu mhm. ngi yowmal xiyam ñu ngi gas ay néew di leen sulli c'est comprendre mhm. safara bi am ci ginnaaw mhm. ma génnee ko bon en ce moment là dama doon wax ne lii bés bu génnee Sénégal day tas ndekete génn na Sénégal tas mais beneen tasin mooy que ni non booy yi li ñuy def horreur la affaire yooyu quoi. et puis après je me suis dit mais dëgg gu mel nii naka la ko nit di waxee ba pare gars yi naan lii nii du dëgg wala am na ñu ne dëgg la. mais dafa am ñoo xam ne ñi nga xam ne dañu am dañu am dañu am doole ñoom dañoo ne du dëgg moo tax tegatuñ ko ci télé bi après ma toog reculer pour mieux toog xalaat sama bopp xalaat. ne man naka laa mën a waxee sénégalais yi dëgg boo xam ne ils vont l'accepter nu muy demee ma xalaat xalaat ay at xalaat xalaat xalaat ma ne dinaa essayer def benn affaire bu comique su ma defee lu comique peut-être su ma defee lu comique jarale la ci message nit kii dina mën a reetaan en même temps di ci dégg daaj tu vois eh, loolu tax bon ba muy bind euh, kàll bi kàll bi muy diggante séeréer ak tukulóor bi cousinage par plaisanterie nga xam ne les piliers les bases fondamentaux de la paix au Sénégal leer na ni yow kàll kàll moo ko yor ma ne lii bu ma koy bind dinaa xool au lieu ma ñëw rek moo kàll commencé comme yenn gars yi ni ñuy defee dama ne non damay utiliser comme lu mel ni cere séeréer bi dafa bëgg cere xam nga utiliser man tapette laa ci kii bi benn pël bu ragal laa dama bëgg gel bi ñemewu ma ko essayer bon ma def ko parce que xam naa ne bu ma ko defee ak comédie bu ciy nekk ñu joué ko def ci invité ci artiste bu comique nit kii dina ko seetaan tout temps tamit di reetaan en même temps tamit di capter benn message bi jàllale voilà mais est-ce que mën nga ñu ko defal a cappella waaw waaw boobu gis waaw <laughs> bon